jigéen am lu dagan ci jigéen rek te daganul ci góor bu dee wurus dagan na ci jigéen daganul ci góor ak lu mu mën a demee rek daganul ci góor bu dee takk wurus bu dee jigéen li ci araam ci moom ci wurus mooy mu defee ko lu muy jëfandikoo nekk ndab lu muy lekk wala yu mel noonu wante takk ko moom dagan na ci moom góor nag takk wurus ak lu mu tuuti tuuti araam na ci moom bu dee xaalis góor mën na koo takk waaye bu mu ëpp gërëmu bu ngopp dërëm bu ko am ëppee dërëm mu xaram ci moom jigéen moom sañ na takk lu ko soob ci xaalis weñ gu ñuul araam na takk ko ci góor na ci jigéen fekkente itam nag dañu takk lam lam bi ñaara ngi si benn poids bi bu mu ëpp dërëm ñaareel bi bu ëppul nga takk ko lam ndax lam jigéen jagowu ko wala déet dañ ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne góor gi suñ borom gën bañ mooy góor gi jigéen jigéen lu jigéen gi suñ borom gën a bañ mooy jigéen ji góor góor bu fekkente ne dafay aada yoo xam ne dañ koy def te du niroog mbiri jigéen lu mu doon bu ne nag ah dañoo xam ne jigéen a ko jagoo ñu am liberté bi rek ni nga xam ne jigéen ñi am nañu liberté sol pantalon sol chemise ba nga xam ne jaaro yi rek lay xamal ne jigéen la góor ñi itam am liberté boobu sëmbartalu def na mu leen neexee rek wala ñu wacc aada yi woon daal ni nga xam ne li ñuy wax dépravation nit ñi eh, ba des na am liberté yëgatuñu dara lu leen lu leen dominer benn autorité bi ñuy respecté amu ci dara nit ku nekk daal day doxee nam la neexee muy li ñu tuddee liberté te liberté mooy lii gën a gaaw yóbbu nit safara tax seetatuñu nañuy defee bu boobaa aram na ndax jullit l'islam bi mu ñëwee daf ko sant na muy lekkee jàngal na ko ko na muy naane na muy doxe na muy diggaaleeg nit ñi na muy soloo te ni muy solo ci la takkaay bokk takkaay loo xam ne lii daf lay niru la jigéen araam na jigéen ji bu dee yére li nga xam ne day melal maanaam lu seere loo xam ne day tax ñu gis cëram na mu toll araam na lu gàtt li di wane yaramam araam na li nga xam ne itam dafa woyof chafaf maanaam lu transparent itam ñuy gis yaramam ñett yëpp bu ci nekk araam na loo xam ne itam daf koy nirale góor araam na góor gi moom gannaaw takkaay yi ñu waxoon ci weñ bu ñu la xaalis gurus moom itam ak colam bu dee sol loo xam ne day euh, seere ba melal cër bi bu dee ci julli sib nañ ko bu dee ci lu dul julli ba tey melan wu ñaaw la wu ñu ŋàññi bu fekkente ne day sol loo xam ne itam dafay woyof maanaam dafay wane yaramam bu fekkente ne feeñalul yaram xam nga ni góor li nga xam ne mooy awraam mooy jumbo ak ak bëti wóomam diggante jumbox ba ci wóom bi bu fekkee ne feeñalul loolu dagan na bu fekkente nag loolu feeñ na araam na bu guddee itam ba nga xam ne day diri ko ñaar moo koy araamal mu mën a diri ku ci kaw sobe nga julli loo am julli wala nga def ko ngir rëy ngir ma titre daal wane ne daal euh, nit ko am am nga ay yére yu jot ak yooyu day daal di araam ak lamti euh, ke mu benn waaye mooy day laaj ndax tiim ab xabru di ci ñaan sa soxla xabru nit ku baax di ci ñaan sa soxla dagan na wala déet. bu nga euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ziyaare bàmmeel yi di leen ñaanal bu leen daal ñaanal du ko yemale ci ñi faatu rek daana ñaanal itam jullit ñëpp moom nag du ca génne. bàmmeel bi dafa am ku muy def wasiila maanaam def tawasul ci kenn du loolu maanaam rek daganal ñaan ci ay bameel loolu laa ci wax dem nag bàmmeelu nit koo xam ne dangaa yaakaar ci moom ngëneel ngay dem di ñaan ci bàmmeelam ulamaaw yi am nañ ci wuute ulamaaw yi nga xam ne ñoo ko daganul daganalul mooy ak ñi demee ne ñoom mooy ñi nga xam ne li ñuy wax maanaam littéralisme la ñu wéyee maanaam dañoo seere nas bi maanaam texte bi da trop près ba nga xam ne gêné na leen ba weddi loo leen yu bari yoo xam ne ñoom seen bopp dem nañ ne ba xam ne lii ñu weddi kenn waru koo weddi ñi gën a bari ci ulama yi